mais moom jaru mi jaru mi jàpp longe parce que dans la mesure où nee na c'est le président qui est prioritaire donc moom mi jàpp moom mi génnee euh, moom mi jox lettre président assemblée nationale bi ah. na ko jàpp na datu le 13 pour euh, déclaration de politique générale bi donc le 13 moom moo war a compter. mu si bàyyi xel sax les wax noonu. voilà bon ñoom si sa député benn bokk yaakaar rek laa gis nag mosuma xam ne jàng bi changé na ba 8 plus 5 égale 11 man de 8 plus 5 égale 13 laa mos a xam. ça aussi c'est autre chose. c'est <laughs> y a un jeu politique et, et des enjeux et l'enjeu mm-hmm. aujourd'hui c'est le contrôle de l'Assemblée nationale mm. et ñi ils se sont projetés mm. problème bi du tas assemblée mais problème bi mooy organiser élection ñoom ñu mun a am une majorité qualifiée qui leur permet de dérouler maintenant dans la stratégie politique si vous avez entendu Ousmane Sonko keroog bi muy wax ak euh, woykat yi waxul ak woykat yi parce que bu doon wax ak ñoom mën na ko yemale ca salon ba mais daf ko sur une conquête électorale parce que jóge nañ présidentielle et loolu c'est une boo xamante ni moom mooy nekk su les devants en tant que leader politique pour se préparer en conséquence donc et en élection ce qui fait gagner toujours c'est c'est les indécis parce que am nga loo am mais il faut nga wut loo ci doole li nga ciy doole mooy ñi nga xamante ni ñoom dañuy xel ñaar wala amuñu woon fu ñu far nga mën leen a xëcc convaincre leen ñu rejoindre sa sa sa cause d'accord yéen député yi coono bii ñu da de. waaw moom kay temps yi pour Sonko ñëw def déclaration. <laughs> partisan ngeen yaakaar ni ñoom bu ñu ko dajoon. ci réew mi. ah réew mi du dépassé fii. wax dëgg yàlla comme mu ne ko mu ngi mel ni bi ñu ba léegi ñu ngi soog am liggéey. waaw tey nga ñëw def déclaration de politique générale bi coono bii rek bu ñu ko dajoon si jafe-jafe askan wi. Ah. Sénégal rek la woon. ñoom ay temps dañu doon bañ wax sax su ñëwee foofu pour wax dañuy nangu micro boole ko dañuy jóg am na boo xam ne Toussaint boo ñëw di ko sotle mooy bi ah. ñuy yoxosu bi Mbéri Sylla kooku bàyyi ko maraakis bi ba dee ah. ku ci nekk bëgg ngaa wane sa bopp kane Maroc pour après bu ñuy defaat liste yi waaw. ma xool ku ci d' accord waaw parce que waaw parce que moom donc xëy dam moo tax ku ci nekk bëgg a wan sa bopp maa mm. maa gën a mën a show. d'accord daal léegi mu jeex. ginnaaw la mise ñëw ci euh, ñaareelu pàcc bi muy tour du web andi ci ak Mati Sarr ñëw. xibaat yi ñu fas yéene ko dooree ak euh, njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay moom mi nga xam ni tey euh, daal dina jël kàddu foofu ca huitième conférence des entrepreneurs euh, chinois et africains waaw le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ñu koy woo ci turam au complet mm-hmm. daal dinay rafetlu tey bi muy jël kàddu muy euh, taxawaay bi dox ci diggante euh, Chine ak euh, dëkku Afrique yi moo tax sax mi daal di woo investi moo tax mi sàkku ci investissement massif boo xamante ni gaañ buñ ko mënee def jëmale ko ci wàllum agriculture wàllum industrie ak wàllum infrastructure yi pour développement boo xamante ni dina ñoŋal dëkk yu ci mel ni Afrique ak Chine Mhm. voilà ginaaw loole itam ñu gis ni kii di Ousmane nowel Dieng daal dinañ ko woolu foofu ca section de recherche. waaw daal nay génn nag daal di weddi yi lekk kàddu daal di ne euh, kenn convoqué wu ko waaye euh, heureusement que. Euh, kiiwu convocation bi mu ngi ab ñun donc Ousmane Noël Dieng euh, tey dañ ko wolu fële ne ci section de recherche bu caserne Samba Diéry Diallo bu Colobane mm-hmm. leen koy doye nag mbir la boo xamante ni moom daf ko daal di soxal. Mm-hmm. ginnaaw loolu itam euh, ministre de l' di ma Mabouba Diagne am na yenn ay ponk yoo xam ni daal na ko fësal tey jile waa euh, ministre euh, de l' agriculture euh, ak wàllum souveraineté alimentaire ak wàllum élevage di Mabouba Diagne daal di nay xamle bisu alxames démb bi que état bu Sénégal daal di nay envisager daal di joxe ay suuf yoo xamante ni suuf yu nangu mbay la ngir ñu mën a booster lu jëm ci wàllum yenn céréales yi pour ñuy mën di produire lu ci mel ni. mburu boo xamante ni man koy defaree foño wala mhm. euh, céréales locales yi boo ko déggee mooy foño wala mbokk wala ñebeeg yi xeetoog yi ni mel mhm. ginnaaw loolu itam euh, mbirum euh, nekk kon animatrice moom gis nañ ni ñu ngi koy wooluwaat le cinq décembre bi ñu jëm waaw effectivement euh, di fàttali rek nag euh, euh, moom mii di Rango ñu ngi ko doon toppee association de malfaiteurs jaay sa bopp ak proxénétisme mooy di boole ay doomi aadama diffusion boole ay boole doomi aadama yoo xamante ni dañuy jaxasoo proxénétisme genre macro mhm. proxénétisme donc diffusion diffusion d'images euh, contrainte aux bonnes mœurs mooy wone vidéo yoo xamante ni teggin mayewul ñu koy génne ci mbed ci mbedd bi défaut de carnet sanitaire mooy jaay sa bopp te amoo carnet violation de la loi sur l'état d'urgence mooy euh, temps couvre-feu bi la problème bi amoon Fatouma Bari nag ñu gën ko xam ci turu Rangu dinañ ko juger le 5 décembre bii di ñëw euh, coow li nag bëri woon na ci mbir mi mais Rangu bi pa te mbir bi mu ngi xewoon le 27 mai 2020 euh, ci benn hôtel euh, bu nekk fii nii euh, Rango dafa organiser woon benn ndaje boo xamante ni moom ak ay ñoñam la te boobu noonu période corona bi la tombé loon nekkoon période couvre-feu aussi donc temps yooyu dajaloo doon ko doon tere mais temps yi naan geste barrière yeeg rester chez donc rango bi pa du wér kese moom euh, ci euh, bile jugement ndax moom euh, ak ku ñuy woowee Aïssatou Ndiaye alias Aïcha Ndiaye moom tam daal dinañ koy topp pour même chef d'accusation yi bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Les Échos. ginnaaw loole itam DG bu CDC di fadilu Keita ak révélation yu yees yi nga xam ni def na ko jëm ci mbirum litige foncier. waa mis nañu scandale yi fii si Sénégal nag mais Fadilou Keita démb bi muy accordé benn interview euh, journal bi di euh, Le Soleil daal di nay wax que ni assiette foncière bu nekk fële ne euh, aéroport militaire bu Léopold Sédar Senghor daal di nay amaat beneen kii boo xamante ni scandale foncier bu fa am mu jëm nag ci trente hectares yoo xamante ni CDC daf ko daal di jëloon ginnaaw bi mu ko jaaralee ci wàllum bi mu ko jaaralee ci waa direction impôt domaine euh, objectif bi nag bu njëkk bi moo nekkoon ñu daal di jël terrain boobu noonu daal di koy viabiliser daal di koy mën a jaay euh, bépp sénégalais boo xamante ni intéressé na la waaye li nu daal di nemmeeku moom moo nekk euh, taux d'intérêt bi nga xam ni. daal di moom mënuñu ko yóbbu fële si hmm. rëbës gars yi barkeel non non yow rango am na jëkkër léegi mariage bi après kii jour màggal lañ ko takk dinaa la tegal. am na am na jëkkër. waaw Rangou marié na euh, léegi léegi mariage yu ñëw. mais am na jëkkër quand même jour jour ga màggal gi lan lan profité rek sëriñ bi oh. maye ko. donc euh, voilà taux d'intérêt bi nga xam ne daal nan koy teg euh, ci ci lu jëm ci wàllum. 30 hectares yooyu noonu mm. déjà dafa élevé donc DG bi lu mu seetlu mooy bu nu xoolee ba ca biir. CDC lim lim ciy ñàkk moo gën a bëri lim ciy jëriñu loolu moom moo tax sax nag euh, mu daal di wax que ni lu jëm ci waa IGE dinañ leen dénk enquête bi pour ñu daal di leeral mbir moom ndax bu weesoo loolu tamit am na beneen 5,5 hectares boo xamante ni ay doomi aadama yu fee 5,5 euh, hectares yooyu mu ngi féetee fële ne ci diwaanu Mamel waaye dafa am doomi aadama yoo xamante ni ñoom itam daal di noonu koy jël aki moo ko ba pare nag te si turu CDC lañ ko daal di signé amuñu benn màqaama boo xamante ni may na leen ko. d'accord ginnaaw loolu itam ñu gis ni Ousmane Sonko daal dina daje ak euh, vice-président bu banque européenne d'investissement. waaw tey jii la nag la ndaje bi daal di am euh, Ousmane Sonko daal di dalal kii di euh, monsieur Fayol vice-président banque européenne d'investissement mu ki ko gunge nag nekk Jean Jean-Marc Pisani boo xam mu nekk ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal tey nag seen ndaje waxtaan bi mu ngi daal di. porté wu ci wàllum accès au financement de PME yi nekk Sénégal PME nag boo ko déggee mooy petite et moyenne entreprise yi donc soutien Union européenne euh, ak euh, bu euh, banque bii ni di banque européenne d'investissement à travers initiative yoo xamante ni comme bu mel ni global gateway gateway donc li leen taxa a jor ka mooy fexe ñoŋal croissance économique durable boo xamante ni fii la nekk ci Sénégal. Mm-hmm. mbirum Mor Talla Gueye ginnaaw bi ñu ko tabbee PCA. waaw Mortalla Gueye nag euh, alias Nit Dof boo ko déggee sa xel euh, ci loolu lay dem daal di nay jël service euh, tey jëlee nii donc ñu ngi ko daal di tabb PCA des fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives ñu koy souhaiter plein succès ci. poste boobu noonu di ko ñaanal yàlla yen bi oyof ndax li Sonko wax rek kenn amul jotu nguuru donc ku ci kun ci tabb rek dan lay ñaanal yàlla yen bi oyof ba nga mën a atteindre say objectifs. ñu jeexalee ak ay kàddu Cheikh Omar Diagne. waaw Cheikh Omar Diagne nag euh, tey jëlee nii am na ñenn ci ñoo xamante ni euh, euh, ay murit lañ daal dina ni amal benn manifestation fële ne ca Jinaan ginnaaw julli jumaa bi ki jiite loolu nag moom moo nekk Cheikh Modou. Mbacke Baara Dolli euh, ñoom ñu doon yuuxu euh, jërëjëfe Serigne Touba euh, boole koog di wax nan dàq Cheikh Omar Diagne mooy limogé Cheikh Omar Diagne ndax ñoom liñ jàpp que ni mooy Cheikh Omar Diagne dafa topp di gingant ak di wax lu. tegginewul si euh, kilifa diine yi lool moom moo tax sax nag euh, ñi sàkku ngir ñu dàq ko ci post ba mu ba mu nekk euh, di ko occupé actuellement nii fële ca biir palais boole kook li leen nee li leen gën a metti rawatina Cheikh Modou Bara Dolly Mbacke moom mi doon wax nee na sëtu Serigne Touba Mbacke Mbacke yi nga xamante ni donoo maandu ci mbir mi te pourtant de lépp lu nu am ci barke ak daraja seen maam moom moo tax ñu am ko donc ñoom daal xam nañ ni que ni fii ak fan yi di ñëw tamit dinañ continuer xeex bi ndax dàqu ñu sax organiser marche bu mag ngir défendre cause yi mooy maanaam defendre li fi Serigne Touba bàyyi. merci beaucoup yi ci euh, xibaar yi nga xamante ni euh, dégtal nga ñu ko ñu fas yéene taxaw ci mbirum euh, Ousmane Noël Dieng seulement ak convocation bi nga xam ni gis nañ ni tey convoqué nañ ko waaye mu mel ni moom dafa weer di mbir moom. waaw Ousmane Noël Diagne ñuy fàttali ni moom moo nekkoon euh, chef de cabinet bu Diène Farba Sarr mm-hmm. foofee sa DGPI. <laughs> moom moo nekkoon fecckat bi. mu nekkoon chef de mu pirate jëppal moom la chef en tout cas euh, nekk na information boo xamante ne bi ñu xëyee jot nañ ko. Euh, mu daal di koy démentir à travers suñu beneen euh, consoeur euh, mais moom xamul ni nag bi muy démentir ñun aussi lijjanti nañ ba jot convocation maanaam mm-hmm. këyit bi donc. <laughs> c'est compliqué pour lui donc.